ci yor yor doon ko leerlu mhm. ba sànq daal lañ ci am ay firnde yoo xamante ne ni dootul deñ mhm. muy ni kon wàcc na wàcc na liggéey mhm. ci fi mu doon fajoo ca bitim réew inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Euh, kon nak euh, xam naa ci kanam tuuti comme dañ koy doog a yëg nii waaw euh, li ci war ci liggéey incha allah dinañu ko tàmbali ci uh-huh. wàllu seede yi uh-huh. xam naa dinañu la bàyyi nga demaat fii ak ci kanam incha allah ñu dellu si waat léegi rek mu ne kon kon xibaar bi nous avons appris tout à l'heure donc la disparition le décès de Cheikh Béthio Thioune il était condamné hier donc à 10 ans de travaux forcés il vient de rendre l'âme ce mardi nous y reviendrons dans un instant incha allah jërëjëf